bokki jullit di soppe yi xarit yi seen émission maa bëgg rasul sallallahu alayhi wa sallam moo di lisuwaat ak yéen ci seen site bu am bi solo te xew ci jamono lool te bari njariñ may ñaan itam ngeen di ko koj di ko xool ndax euh, seen lépp mu ngi ci biir fondation Kër Rasoul defal leen ko muy fkr 92 point com ngeen ànd kook seen soppe seen xarit bu leen yéene yiw lool muy Abdoulahi Mbaye di imam fondation Kër Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Eh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp bokk yi eh, dañu toll ci jamono yu am solo muy jamono tabaski fondation bi nag wax fondation Kër Rasoul nag ci njiitu imam njiitu Mouhamad Abdallah eh, wax dëgg yàlla bëgg-bëggam yëpp mooy fu mu toll daal sës ci askan wi rëkk sës ci xeet wi rëkk gis boppam ci askan wi askan wi gis seen bopp ci fondation bi loolu tax na jamono bu nekk rek dégg nga ak xew-xew bu mën a doon mu tàllal leen loxo yëg ne nag mi ngi leen di yëg di leen bay xel moom fondation bi ak ay membre am yëpp ak ñi ci nekk macha allah nga xam li leen yitte lépp mooy daal eh, sopp Seydina Mohamed di gën dund ci xol yi dund sharia dund sunna di gën dund ci xol yi dund sa réew topp ak ak actualité yi nga xam ne dégg nga réew maa ngi koy laaj pour jàmm mën a am ñëpp kenn ku ne gis sa morom ci sa bopp gis sa bopp ci sa morom eh, tabarakallahu loolu fondation bi loolu mooy bëgg-bëggam su ko defee nag day noppal chef de l'État day noppal dégg nga euh, première dame day noppal xulafaa yi day noppal président daayira yi day noppal dégg nga association yi day noppali tamit dégg nga délégué de quartier day noppali tamit macha allahu commissaire yeeg ñoom ñëpp ndax lan ndax ñëppay am jàmm ñëppay am jàmm su ko defee nag kon ndax jaboot it jàmmay mbokkam jaboot jàmmay mbokkam kon nag loolu tax na euh, mu yëkkati tey kàddu pour ndokkeel ñëpp ci tabaski gi ndax euh, euh, dafa doon xew-xew bu am solo te am na sew-sew bu ci am muy tabaski sew-sew bu ci am mooy lan mooy déggal borom bi mooy al imtisaal ci awamirullah ak dégg nga xadaai rabbil alamin mooy lan mooy nangul yàlla santaaneem mooy sew-sew bi ci nekk képp koo xam ne jëfandikoo nga ko dégg nga fekk sa nga seydina ibrahim alayhi salaatu wasalaam ci nangul yàlla ak ommatu ci dogalam ak santaaneem ci kan ci ak doomam Ismaïl ci ñu ne rendi ga Màkka la amee dégg nga eh, ak kan ak soxnaam Haajara muy Seydatuna Haajara muy way juri Seydina Ismaïl ak kan ommatu gi xar mi ommatu ak kan ommatu gi Jibril ommatu yooyu yépp nag daje ci barab bu tedd boobu muy Muna muy Muna di makkatal mukarram xew-xew boobu am mais la ca neex yàlla dégg nga ba borom bi bég ca ba jël ko teg ko ci loosu jaam ñi eh, tabaarakallaahu ñu di ko jëfandikoo mu nekk sunna mu akkada sunna bu ñu feddali seydina ibrahima mooy cosaan bi waaye sew-sew bi ci am mooy ommatu gi jaam bi ommatu ci kanam boromam nangul ko li nga xam ne moom la sottandiku ci moom loolu moom moo ci neex borom bi Eh, tabarakallahu loolu la ci jaam bi di yëg digganteem ak boromam eh, muy nag eh, xar mën naa nekk bëy mën naa nekk nag mën naa nekk giléem mais xar a gën te xar ma kuy ma moo gën ñu bàyyi ko xel bu baax nag ndax sunna bi <coughs> xar mi nañ fexe ba ñi ñi nga xam ne dañuy yor seeni xar di dagg geen yi ak di xar nopp yi ak di dagg nopp yi nañu moytandiku <coughs> ca soo demee ci suuratul An'am borom baa ngi fay wax ne Iblis dafa wax ne danaa dugg ci seen biir Iblis a wax de alxuraan na nettali suuratul am danaa dugg ci seen biir dégg nga di leen nax di leen dig yu amul di dugg ci ba ñu dugg ci jur yi ba fa la yu bàttiku na asaanal an'am moo ko wax te daf ko géñ danaa dem ba di leen nax ba ñuy dagg geeni xar yi di xar noppi xar yi noppi jur yi naan pour mu giir ak pour mu mën a am doom pour mu mën a suur déedéet boo bëggee mu suur xontal soo bëggee mu am doom toppatool ko koy te taxaw ci yooyu sàmm ko dégg nga sàmm caawa gu baax loolu mooy tax mu giir am doom mais iblis mooy naxee noonu sàmm yi dégg nga ba tax pour lan pour boo xaree nopp bi lu ëpp sulus ba dootuma tabaski soo daggee ca geen ba lu ëpp sulus ba dootuma tabaski su ko defee kon looloo tax sulus mooy boo xaajee geen bi ñetti xaaj wala nga xaaj nopp bi ñetti xaaj lu ëpp ñaareelu xaaj ba dugg ca ñetteelu xaaj ba dugg ca su ko defee kon su boobaa dootuma tabaski parce que programme su na teguwul ci xel déedéet xar mi mën naa rëy duuf ba jëni na léng te fekk matul tabaski ndax mi ngi tegu ci charia ci sunna euh, xar mi bu muuma danga ko xool di def nii dégg nga bu meemee nga xam ne muumawul ba noppit bu mu nekk silmaxa dee ko def nii su xoolee nga xam ne du silmaxa tey bu mu tëx nga xam ne soo defee nii wala nga dem te nga gis mu geesoo nga xam ne tëxul mi ngi dégg su ko defee yooyu yëpp day jaar xool ci xar mi su ko defee nag at yi mat eh, tabarakallahu mu am at mu mat sëkk dégg nga eh, juróom benn weer juróom weer ca yooyu xar nag mu am mat at at mu mat sëkk wax dëgg yàlla su ko defee dana mat tabaski léegi nag <clears throat> buñ demee nag ba ci jamono wàll rend gi foofu it yi nga xam ne sart yi fi daje mooy kii ak kii moom tabaski mi su ko mënee na rendil boppam na rend ci loxoom bu ko keneen rendilee wuutu wuutu ci dana baax waaye kooku na xam sarti rendi te dañu bëgg nag kii moom tabaski mi jege ko bu mu sànni rek na dem leen ngeen rendi xale yi dem leen rendi te ñu dem rendi rendi rendi wuñu comme ni suñ na bëggee loolu baaxul parce que paquet bu boo rendee nii ba noppi teggi ko tegaat ko ci dégg nga da ñàkk tabaski te yàpp yu kenn du ko lekk meddi lay doon te loolu sew-sew la su ko defee boo xasee teg paaka bi ki la ñaddul téel la bu paak bi teggeeku te na gaaw te na ñaw dégg nga mu doon benn buy teggi sa loxo tegaat ko ci rek du wér te yàppoo kenn du ko lekk su ko defee kon yooyu da cee mat a bàyyi xel bisimilah imam bi tamit su fekkee ne léegi moom mooy moo jiite na nga fexe nag yow yow yow yow mii tabaski ba yeew sa tabaski pour njëkk rendi imam boo reen boo njëkkee rendi imam bi la jiite wala imaam ci imam bi nga natt na mooy sa imaam ci gox bi doonte julli jiwoo waaye imam ba julli na ba pare bala ngaa rendi nanga wut nanga wut xabaar yu leer nañ ba wan na imaam rendi na ba pare moo tax ñu bëgg imaam muy gaaw ndax nit ñi bu ñu julli pare am na ñoo xam ne dañuy julli rek jóg imaam nekk fa di xutba naan waaw xar mi nii la war a mel déedéet parce que ñuy jënd di jënd nañ ba pare balay tabaski gu jub comme nañ nañ ñëw koj fondation Kër Rasoul nañ ñëw ko nañ ñëw ci fkr 92 point comme site boobu ñu koj ko fa ñu xool ñu xool dégg nga li dégg nga li ñu leen wax ci tabaski li ñu leen wax ci aj màkk bala ngaa dem nga mën ko faa jàng xam ko dégg nga su ko defee loolu la waaye bul jékki ba bésu tabaski bi jot dégg nga kii yeew yeew na lam am ba pare moo xam mat na wala matul dégg nga wut na ba pare imam bi nag buy ba su boobaa na compétent bu baax a baax xam nga lu tax imam bi na yeew bu baax dal julli te gaawal xutba bi day barkelu rek ndax ñee jënd jënd nañ ba pare jarutul nekk fanaan xar mi nii la wala mel ak di ko numtudati di benn benn ah di dugg ci lu ne mu dugg ci di wax nit ñi di waare waare wu gudd fekk nit ñi dem nañ bu yàgg te am na ñoo xam ne bu ñu àgg rek rendi am na ñoo xam ne bu ñuy àgg rek toog diir rek duñ ci teg dara lu may dal di acc bisimilah dal di rendi duñ teg loolu te léeg-léeg quartier yi dañu xaw a sore su ko defee nag kon imam bi na dimbale nit ñi nu mu leen di dimbale mooy lan na xutba xutba bu gàtt am na ñoo xam ne bu ñuy sëlmal julli gi rek jóg nañ taal seen oto ñenn ñi gàddu seen i sajjaat dem seen yoon duñ déglu sax waxtaanu imam imaam nag gaawantu dal di tënk xutba bi ci ci baat yu gàtt ndax bésu liggéey la baat yu gàtt dal di ñëw nag dal di indi fekk nag yeew taxawal nañ gàtt bi xar mi mu indi na ko daal di rend ci kanam nit ñi te gaaw te gaaw su ko nit ñi daal di mën a dem rend yi waaye buñ fi nekk naan ana paaka ba ah, waaw ana kii ana xar ana ñëw leen imaam xaar la imaam la xaar mu ne fa di xut ba pare naa ne tummil ma solo kii bi andil ma li dégg nga tardeel nit ñi fekk nit ñi rendi su ko defee mu gàddu boobu bàkkaar loolu musiba la loolu musiba imaam yi loolu lañ leen di ñaan ñu forlu ci côté boobu eh, fa tabarakallah muy lu am solo nag waaye nag sew-sew bi ci am daal te am solo mooy nangu gi jaam bi nangul borom bi subhanahu wa taala santaane bi ndax mi ngi xewee ci maam sunu ibrahim alayhi salaatu wasalaam borom bee ko sànni benn message muy sunna bu dëgër bu am solo boo xam ne bi mën nga ci am sa borom mën nga ci am ngërëmam dégg nga ndax tënku nañ ci ku baax ki sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ñëw roy sunna bi dundal ko jaam ñëpp topp ko ci maam suñu Ibrahim borom bi daf ko sànni benn message na ko rendil sa doom ji Ismaïl ñii ne Isaaq si daaj may naa su fekkee ne day dégg nga rend gi Palestine la dégg nga baytul muqaddas kon de Isaaq la su fekkee rend gi Makka la Ismaïl ndax Ismaïl la moo nekkoon Makka ak yaayam Hajara léegi nag te rend gi ma nga amee Muna fa la siiwee euh, euh, mu ne ko daal rendil sa doom ji mu ne xifeet yeewu lire message bi muy loolu mu war doom ji na ko man day dama jot benn ndigal ci sama borom ne naa la rendi ah waaye waaye doom ji doom ji doom doom jooy borom cër sidna Ismaïl xam nga lu mu ko tontu def na ko def na ko yaa abati ifal ma tu'mar liñ la sant def ko dégg ko man sa tajiduni insha allahu mina sabirin déggal maqaama sabru gurubu saabiroon yi te borom bi subhaanahu wa taala dégg bi mi bi mu dénku yónent bi def na ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ulul asmi cinq lañ seydina ibrahim seydina moussa seydina isa seyd dégg nga seydina nuh seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróom ñi ñooy ulul asmi moo tax borom bi na ko fasbir muñal kama sabara ulul asmi min ar-rusul groupe boobu nag ci la seydina ismaila dugg te tajjudi ni incha allahu dis nga moo indi baatu machia mooy incha allahu mu dugal sart bi bu soobee yàlla danga ma fekk ma bokk mina sabirin allahu akbar xam nga ne kon xale bi dégg nga tabaarakallahu ommatu na yaay ji nangu ommatu iblis dem ci moom dara baay bi nangu ommatu xar mi nangu ommatu ñu rendi ko ismaila mucc jibril nangu ommatu def ndigalu borom bi dem indi xar mi yii yëpp xew ci benn barab ñu defal ko kenn muy borom bi subhanahu wa taala léegi nag jaam ñi ci topp ñëpp it foofu lañ leen di yéegal mooy amatu nangu santaane borom bi ci li nga xam ne digal na ko jàmm bu ne Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam su ko defee kon yi fondation Kër Rasoul mi ngi leen di ndokkeel ci tabaski gi yal na yàlla yombal lépp barkeel ko fa tabaarakallaa ba noppi nag nangu ko loolu rekk ci am solo ndax yonent bi def na borom bi fa in fa fala ubali kon nag yàlla nañu ko yàlla defal Eh, tabaarakallaahu eh, fondation Kër Rassoul mi ngi ndokkeel ñëpp ci julli gi ñu julli ko bari la ko dégg kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp yéen nga noonu nag seen soppi Abdoulaye Mbaye dégg nga imam fondation Kër Rassoul ci caméra bi Omar Rassoul kon nag Omar eh, fondation mi ngi ndokkeel ñëpp ci sa tur yow mi nga xam ne yaa ngi teew yor caméra bi macha allah di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm zaahir ak baatin inu wali li dalika wal qaadiru alayhi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.